salaamaaleykum. maaleykum salaam. ça va sëñ bi. ça va soxna si. yaa ngi ci jàmm. ani Modou. maa ngi nii de. Modou borom atelier bi laa wax. Ah, waaw man la. ah Modou bi ma fekkoon keroog de du bii. Hmm. ah mën naa toog. bisimilah toogal. xale yu ku xaw a xeereer ak ku ñuul ku dëgëj bopp bi am yaram nii ma ñëw fekk sama benn coppine daf ma expliquer fii nii pour ma ñëw fi indi fi sama ñaw parce que dañ ne ma dangaa mën ñëw macha allah Moodu sax lañ wax parce que man xam na sax kuy Moodu instant bi dégg nga léegi ma ñëw laajte Moodu ñu ne ma fi may atelier Moodu léegi ma ne ana Moodu ku xees ki ne moom mooy Moodu ma jox ko sama ñaw avance ko sama xaalis avance ko vingt mille francs mu ne ma ñaw bi trente cinq mille la léegi nag mu ne ma su ma xëyee naa ko jël si le lendemain ñëw ñëw naa fi boobu ñëwaat naa fi sur lendemain ba léegi nii su ma ñëwee sax duma fekk kenn juste ay yeneen xale yu goon laa fi fekk. Ah. waaw. maa joxoo leen sa xaalis. jox naa leen vingt mille francs. vingt mille nga leen jox. vingt mille francs laa leen jox ak jésneer bu chôme. kenn ko am yaram ak kenn ko am kenn ki dafa xees sew nii kenn ki am yaram dërëj boobu bi daal ñuul waaw xam nga ñi may wax est-ce que ah, samay copain ah kon baax mais yow la dara metti yow xoolal melal ni yëgoo lu xew toogal rek xaar ñu ndeg ñu ñëw ah. fii la ñuy fréquenté léegi nii ay enfer barke yonent dama ne kii la si doxantu ci loxo bi ba réer xool ndaanaanu ndaanaan yaa ngi nii tey li ma gën a neex ci moom xolo bii neex wala tey dama la fas yéene tegal loolu boo xam ne bu la neexee fanaan ne liggéey bàyyi ma zéro dama ne kii rek fi du indaale puso moodu mi kii tëyeer mbiram la kii ca yomal am sax da doon ñaw bon la

moom eh. demee ma ñëw jàppante non moo attends dañoo ñëw xam nga booy bi dafa ñëw yàqamti dañ doon bañ xam nga la mais man dóor jotoon naa ko dóor sax génn tegal ko li fi ne tabaski bi Modou yaa ma gën a nëw waaw saa yi xam nga rek géré na ko xam nga géré na ko ñooñu ñooñu xam naa moom tey moom ñaw bi xool non fii ku fiy toog Modou ñun ñëpp benn xool Modou sax daf ñoo ñun dañ koo xool ba mën ñaw. waaw mais ñoo ngi jégalu nag Modou xam kii boo ko solee xool. billaahi wallaahi. kan moom li bu man de. si yaa ko moom kay. seen tissu bu yàgg bi man maa jox leen jésner bu am jom super mag ñoom gold laa leen jox bu bees tàkk bu chômo ngeen indil ma lii kenn xamul ak peram yu bare. yow xa yow yow gi nga tissu waaw lii du suma. Modou nga baal ma yow laa mën a waxal ñii amatuma sax lu may wax ak ñoom. gis ngeen suma laa fi indi. yaa ngi comprendre jox leen vingt mille francs avance indiw ma fi woon lii si bu yàgg bi yow xoolal li lu froissé lii lii du sama dus. mais da nga naan jox ko ñoom ak ñoom Modou wala nga lijjante ma man. moom nga ko jox aw matam temps. moom nga ko jox yow léeg-léeg yow ma jëlal mesure du yow. man mesure rek ma jëlal mesure gis nga kii buñ fi yàgg dinañ jàpp say client di ma jëlal mesure di jël ay tusa. ah man maa jël loolu rek ah

léegi da nga koy ñoom man nga defal ndànk rek. xam nga yéen samay nit ngeen quoi mais yéen yéen a tax ñu bari nangootuñu fréquentation ci biir atelier wala salon xam nga. Hmm. yii la ñuy bañ xam nga parce que nit ñëw fekk fi borom place bi nga encaissé ko ah jël vingt mille francs am. am fit fi réew mi toll nii doy na waar quoi. mais yow yow bàyyil noonu rek. naa ko arrangé ko man xam nga lan laa bëgg sama ñaw na génn non yow xaaral rek xaaral dafa ndànk ma wax la fii chez Modou la quoi sooy dugg da ngay kontaan booy génn da ngay fecc. voilà loolu dëgg la léegi man naa ko naa ko gérer quoi. léegi may ñu fekk 2 jours inshallah allah man xoolal naa la ñawal sa ñaw. jox la ko quoi parce que ñii xaw ma nu ma leen def dañoo yàgg. deux jours de moom. waaw ah, fekk deux jours rek nga ñëw. te foog a ba léegi naxuñu ma ne yaay vrai Modou bi. non maanaam. Ah. eh fekk deux jours dañ doon fem. le vrai Modou est là. kii mooy ndaanaan ndaanaan yi. kii mooy l'homme de la situation kii mooy régler problème yi. kii ku nekk yara xam nga Modou mi. non dama lay wax rek sànq dama keroog dama doon fen mais bii dëgg la Modou c'est le vrai ndaanaan mi ngi nii tailleur yëpp. moy sen bay mi ngi ni mako ko wax man ñi awma ma lu may wax ak ñom yaa ngi comprendre deux jours nga ma may dina fi ñew jël ci sama ñew wala nga jox ma sama dix ak sama 20000 francs. non amul ben problème soxna si. ngi comprendre ñew nga yobu sax. wa baax na amul problème kon ma ngi dem nga lijeentel ma sa ñi xam dinañ daana sa place. wa mais dara ya may gaañ kan, wa waaye defal ndank rek. wa moy comme lolu rek. non non Modou non. yow amo lo wax. tawal fi nga. yow amo lo wax. yow la yow amoo loo wax moo fa mool ñu ngi non wuyu ma loo wax yow li nga fi def nii sa waay na waa trop ah ñu ngi jégal bu baax ni ngeen nekkee sama gaañaan amoo leen leen loo leen may def loolu di ma dóor waaw xam nga rek tabaski bi rek mais tabaski bi gaañaan man su ngeen ma laajee sax ma jox leen yéen xam ngeen ne man bañul ma leen dara ah man yéen laa am yéen man ngeen am mais am na yoo xamante ne nii rafetul quoi ñu ngi jégal bu baax fréquentation atelier yi ak salon de couture yi ñu bëri ñemeetuñ ko sa sa seen genre gi rek moo tax ñemeetuñ ko quoi. vraiment douce naa la waar. ah bon waaw ñu ngi jégalu waat mais dara dara gars yi. jégalu de gars yi jaajëf